Sénégal yi ñuy déglu asalaamaaleykum mbokku taskatu xibaar yi ñu leen di gërëm ci wuyu si bi ngeen ñu wuyu si fii àddina bi tollu ci ay jafe-jafe dafa am lu Sénégal tal dafa am lu président de la République ak ñi ànd ak moom di liggéey tal ak lu ñu talu dafa am lu réew mi àttan ak lu mu àttanu li xew ci àddina bi bi ñu génnee ci ñaari ati mbas te jeexagul geeru Ukraine fu nekk di màbb njëg yi di yokk fu nekk ci àddina bi ay réew yoo xam ni njëg yi na mu fay yokke daanaka day doubler li ñu war a tal mooy fexe ba jafe-jafe yooyu bañ a nërmeel suñu askan bañ a nërmeel suñu réew jafe-jafe yi ñu ngi fi jóge ci àddina bi ci loo xam ni suñu yoon nekku ci wante suñu warugar la ñu takku fexe ba dékku ko ba ñi nga xam ni ñoo gën a néew doole jafe-jafe yooyu bañ leen a nërmeel ci cadre boobu ci ngeen gis président de la république yokk saleer yi ci enseignants yi ak ñeneen ci ngeen gis six cent mille familles yi gën a néew doole ñu jox leen ay ndimbal direct yónnee leen ko ci yaatal loolu fexe ba mu gën a yaatu ci lañu nekk ci la ñuy liggéey guddi ak bëccëg dem Russie wax ak ñi nga xam ni ñoo indi guerre bi wax leen ni stock ya fa nekk nañu fexe ba Afrique am ci lu mu dunde nañu fexe ba engrais bi nga xam ni bu ko baykat yi amul ci nawet bi tàbbi jafe-jafe yi dana gën a tar ñu fexe ba libéré ko pour mu mën a egsi ku nekk ci loolu tal nga leneen lu dul tëbi teen jàmm ci lañu ñu mën a liggéeyee ak liggéey bu mu mënti doon jàmm ci lañu ñu mën a jaamoo yàlla ak xeetu jaamu yàlla bu mu mën a doon jàmm jooju nag bokkul ci sàmm ko lu yoon dogal te neexu la nga ne du fi amee sartu réew mi ak yoonu réew mi kenn rekk la jox sañ-sañ mu wax kuy bokk ci élection ak ku ci dul bokk muy conseil constitutionnel joxu ko président de la république joxu ko ministre de l'intérieur conseil constitutionnel rek moo am sañ-sañ dogal kuy bokk ak ku dul bokk bi ñu invalider listu ndakaaru bi conseil constitutionnel dafa ñëw jël beneen dogal donc conseil constitutionnel moo am sañ-sañ bi bu xisee wax nag wax ja day ferankulaay fa lay yem amul dara lu ko féete kaw kon lu mu dogal ñi bëgg jàmm bëgg li ñu war a tal te mooy fexe ba jafe-jafe yi jóge ci àddina bi bañ a faagaagal réew mi muy ñun muy opposition li ñu war a def mooy sàmmoonte ak dogalu conseil constitutionnel moo xam neex nañu moo xam neexul li ñu bëgg a gëmloo ni itam dafa am ñu ñu bëgg génne ci élection yi loolu amul puisque coalition yi am na list nationale dadul titulaire yi mais yaakaar naa ni ni ñu respecté seeni titulaire noonu la ñu joxe cër seeni suppléant bu leen askan bi bëggee voteel député yi mën naa bàyyikoo ci seen liste boobu donc loolu jarul yëkkati fitna jarul dajaloo pour indi fitna puisque bu fekkente ne nit am na possibilité lu ko neexul ci li yoon dogal mu dajale dooley boppam faje ko ko société amatul état de droit amatul état amatul bu ñu demee ba nit sañ li yoon dogal mu teg ko fee wut doole ak pexey boppam yu mu faje li mu bëgg état amatul société amatul liggéey amatul ku man sa morom duma mooy taxaw responsabilité état na responsabilité président de la république bi ci jiitu mooy kaaraange mooy sàmm nit ñi ak seeni am-am ak seeni moomeel C'est ça la responsabilité première de l'État et du président de la République donc jàmm jooju ñépp a ci war a liggéey opposition bi pouvoir bi sëriñ yi ñaan population bi gën a takku état bi gën a góorlu ci pexe yi muy wut pour yokk am amu waa réew mi ak wàññi njëg yi loolu ci la ñëpp war a mobiliser wu te ci lañu ñu woo ñëpp li ci des nag mooy élection suñu sartu réew moo ko tëral tëral ay yoon yu mu war a jaar bu egsee ku nekk am nga sañ-sañu tànn